ñoo ngi lay fay. dañu gis ne jamono ji dañoo toll jamono joo xam ne euh, problème yu bari day am ci tribunal euh, xale yu jigéen yoo xam ne dañuy photo wala ñu filmer seen bopp euh, simeeku def yaramu neen léeg-léeg ñu envoyé ko seen copain kooku bu ñu amee jafe-jafe mu tasaare ko ci internet bi ba yoon di ci dugal loxoom lu mel noonu yow en tant que jigéen lan moo ci sa xalaat. Euh, merci beaucoup ci question bi mu posé gis naa ne question bu pertinente la en plus dafay def actualité man ni ma ko gisee rek moom mooy que ni xale yu góor yi faral di def loolu donc dama jàpp ne donc méchanceté lañ ci jublu certes que xale bu jigéen bu simmeeku def yaramu neen envoyé ko sa sa copain comme tu l'as bien di daf ko def parce que dafa bëgganteeg waa ji mais moom bi mu koy def xamul woon ne un jour viendra ba bu amee ay jafe-jafe kooku wax ko mën a jël ji ko def chantage ñoom ñaar ñëpp ils sont responsables ndax ils sont fautifs man je peux pas comprendre takkuloo ma même soo ma takkee sax y a des yoo xamante ne peut-être que intimité dafa war a resté entre ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko seek de là nga filmer ko di ko envoyé nit ba un jour mu ñëw di la ci def ay chantage je crois que ñoon en tant que jigéen war nañu xoolaat bu baax a baax suñuy comportement des fois nag peut-être suñu mbëggeel moo ñuy defloo ay yoo xamante ne ay erreur la mais erreur bi moom yaakaar naa ne ku koy def ku ne war nga ci bàyyi xel bu baax a baax mais dam mais xam nga tamit euh, bu dee même da ngeen a nekk ci dafa nekk da nga nekk ak ci biir néegu sëy parfois divorce mën na am bu doon tey yónnante ngeen ay photo bu ngeen divorcé problème am seen diggante parfois di gis couple yoo xamante ni loolu dafay faral di am. Euh, pourtant wax naa ko sax nee la même bu dee da nekk ci biir néegu sëy entre homme ay ñuy sëy donc je pense que même ñuy sëy sax waruñu mën a photo photo seen moment d'intimité parce que loolu je pense que ñi ko sekk ñoo ko war a sekk donc quel que soit alpha moo xam kuy sëy koo xamante ne da nekk ci ngoro bu dëgër bu dëgërul jox sa partenaire donc loolu moom vraiment yaakaar naa man boog ci sama xel bu gàtt mbëggeel ñu koy def lu ñu si jublu mbëggeel yeggul foofu ah peut-être dañuy ne ñoom dañuy firndeel seen mbëggeel rek dañuy firndeel seen mbëggeel man bu dee ñaar ñiy bëggante bokkuñu fu ñu nekk nag bu dee tey kii ma ngi ci réew mi kii nekkul ci réew mi parfois muy photo di ko envoyé yooyu même sax même sax loolu ma nekk fii nga nekk Japon appel vidéo yi tout le temps dañ ciy sensibiliser les gens mën nga def kooku def ko capture d'écran on ne sait jamais àdduna am xarit bu ko def. non man ci ni may fàttaliku nag dama koy liir nii rek ci presse bi ci fait divers yi mais vraiment xamaguma koo xamante ne dund na lu ni mel. sama xalaat ci mbir mi dinaa si mën a wax parce que ci liggéey bi may liggéey souvent dañuy gis cas yu mel noonu bari na ci ci ci ci milieu bi ñoo xam ni souvent dangay gis nag fa nekk loo xam ne dafa nekk en vogue ku nekk am nga si part de responsabilité muy góor ñi muy jigéen mais comme ni ma koy waxee souvent mbir mi li si jig góor jigu si jigéen. Euh, waxuma la sax safar koo xam ne da ngeen di ànd ngeen bëggante muy neex parce que parfois mën na neex parfois mën na naqari donc xale yu góor yi dañu tàmm léegi bu ñu amee copine tak surtout ñuy xamante ci réseau sociaux yi tak buñ buñ bu ngeen xamante sax benn fan ñaari fan ni ñu lay njëkk a wax mooy envoyé moi des photos nues ay vidéo nues ay appel vidéo genre yooyu xale jigéen yi bari nag di tombé ci piège bi mais li làqu ci gannaaw moom mooy bu fekkee da nga ko defal koo xam ne yéen a ngi génn après mën na téye vidéo yi wala photo yooyu di la ci chantage mën na la def loolu ne defal ma lii defal ma lii mën na la tëddee mën na la utiliser su fekkee defoo ko dafay jël vidéo yi euh, publier ko jox ko ay site internet bi ci gën a doy am na ñoo xam sax dañuy piéger xale yi jigéen ñi pour jël seeni photo ak vidéo dem jaay ko ay sit internet comme par exemple gis nga fi Séné Porno euh, moom sax def ko affiché carrément ci internet bi nëbb ko ne képp ku ko indil photo wala vidéo obscène muy euh, sénégalaise lambda wala sénégalais lambda wala muy célébrité dalay fay mën na la fay 10 mille ba 100 000 francs CFA c'est affiché ñëpp gis nañ ko donc xale yi góor yu bari moo tax léegi dañuy dugg ci réseau sociaux yi di piéger euh, xale yi jigéen ñi di leen gëmloo mbëggal ainsi de suite alors que dañu bëgg juste ay photo wala vidéo obscène yoo xam ne mën nañ ko teye ëllëg di la ci chantage lu ne wala jël photo yooyu ak vidéo yi jaay ko wala dugal ko ci sidi su bu dee nag sa jëkkër la dama ne la sëy boo gis day neex day naqari donc même bu dee sa diggante ak sa jëkkër sax man dama koy déconseillé femmes yi parce que am na ñoo xam seen jëkkër yi dañu nekk extérieur ñoom ñu nekk fii ñuy photo wu euh, yaram mu neen vidéo mais ëllëg ça peut mal tourner ngeen divorcé wala inci de suite gis nañu fi ñoo xam ne seen jëkkër si boppam buñ divorcé seen ex moo koy jël tas ko si internet ainsi de suite pour venger wu wala yu demee noonu donc quelque que soit alpha muy sa copain ku la bëgg sax dama man dama jàpp ne ku la bëgg jigéen ku la bëgg respecté la yàlla xam na ni muy sa jëkkër muy sa copain du la wax si meekul daatu neen yónnee ma ko mooy li ma leen wax muy sa jëkkër déggoo li ma dama commencé par sa jëkkër koo xam sa jëkkër la maanaam alxayri jib na dem ngeen jàkka ja wala église wala mairie ainsi de suite kooku sax waroo ko ko accepter parce que déggoo sëy tey day neex suba mu naqari donc bu fekkee ku góor ki am na loolu si yow am na jigéen ñoom dañuy divorcé seen jë jëkkër doyalul si ñoom ñu divorcé seen jëkkër fekk gàdde woon na ay photo ak vidéo mu jël ko tas ko pour yàq seen der nga am copain ngeen bàyyante nga ànd ak keneen loolu naqari ko mu jël video yi tas ko pour jigéen nga dem di génn ak beneen góor ku góor ki parfois am na soxna euh, soxnaam on ne sait jamais mën na tomber si portable bi gis photo yi vidéo yi xam nga jigéen dafa fiir donc da ngay venger wu nga ne ah sama jëkkër bii de mi ngi may tromper ainsi de suite xoolal photo yi xoolal vidéo donc pour nga venger wu si xale bu jigéen boobu nga xam ni sa jëkkër mi ngi lay tromper ak moom c'est lu si ëpp sax euh, seen ja jabar ñoo ñooy jël photo yi dem tas ko jaay ko ay site internet wala sax duñ ko jaay dañuy ñëw neexal site internet ne ko tas ma yàqal ma femme bi parce que femme bi mu ngi génn ak sama jëkkër ainsi de suite maanaam vengeance lay nekk donc ce n'est pas sûr même ki nga koy yónnee bu fekkee moom du ko tas du moment que yow jël nga photo bi Euh, mu nekk sa portable rek amatoo ci benn contrôle rawatina nag nga jël photo bi wala vidéo bi envoyé ko beneen nit amatoo ci contrôle nit ki nga koy envoyé sax mën na ko bañ a tas mais keneen mën na si tombe on ne sait jamais kan moo siy tombe jël ko tas ko donc li ma leen di conseiller mooy dama ne la mbir mi. ak loo mën a seq ak sa jëkkër wala sa copain wala sa copine ainsi de suite bul accepter kenn di la photo wala vidéo parce que ëll xamoo ko siy tombé amatoo ci benn contrôle du moment que nga it jël photo bi wala vidéo bi c'est fini amatoo ci. vraiment war nañu xoolaat suñu toogaay bon ñun ñuy góor yi nga xam ne des fois ñu ñooy sa jigéen ñi naan leen carrément ñu def ay vidéo wala ñu def ay appel vidéo ak yooyu donc bon ñun naan dëgg fa yàlla ñun suñ ko bañee rek ñoom duñ ko def ndax am na ñu ma ne carrément seen bëgg-bëgg la ñuy topp suñu bëgg-bëgg la jigéen di topp. ba di lor seen bopp quoi loolu daal bon vraiment lu ñu war a mën a leeral la quoi lu ñu war a mën a leeral la.